mbiru saxaar moom foo dem ci àddina bi da ngay gis ne eh, lu fa am solo la ñu ci bari sax buñ tukkee génn Afrique rek doo xam sax fan la garage yi oto nekk lu ci bari otoraay ngay jël te lii wane loolu mooy dafa am eh, ay jàngat yu ñu def yu wane ne otoraay boo demee ci àddina bi buñ jëlee eh, moyenne bi maanaam junni kilomètre carré yoo jël ci réew yi ci àddina bi euh, ñaar fukk ak ñetti kilomètre de moom moo am waaye boo duggee Afrique loolu mu ngi ci ñaari kilomètre dong ak juróom ci junne kilomètre carré xam nga loolu day wane ne Afrique moom tardé na boo gisee nag réew yooyu toll foofu dafa fekk ni ñoom dañu xam ne otoraay moom moo mën a yóbbu nit ñu baree bari loolu d'ailleurs moo doon waxtaan bi tey moom benn euh, moyen la boo xam ne boo jëlee ñun suñu otoraay benn rek mën naa yóbbu ñaar téeméeri nit ak ñeent fukk loolu moom xaw ma ñaata oto ngay dajale pour mën a am loolu loolu benn la ñaareel bi mooy otoraay moom ngay mën a xam ne heure bi boo ko déparé heure ba di nga ci mën a yegg en tout cas ci système mu Sénégal système transport bu Sénégal ndax feneen nag aussi mën nga jël yeneen moyen de transport yoo xam ne di nga xam heure yi boobu ñaar la ñetteel bi mooy ci wàllu koom-koom ndax xam nañ ne tey poor yi dakaar di ngeen coow li fa nekk li fi am mooy dangay gis ay fanweeri camion yu rang ku ci ne bëgg a jël benn conteneur nit ñu bari daje fa coow li bari ñu jël ay place loolu nag benn otoraay dong mën na koo jël kon xam ngeen ne otoraay moom lu ci nit def rek jar na ko li ci topp nag mooy otoraay moom day tax réew yi mën a lëkkaloo mën a yokk seen jaay ak seen jënd tey gis ngeen li ma joxe sànq biir Maroc seen otoraay yi am na ñaar fukki otoraay ak benn ak ñeent par bés yoo xam ne ñu ngi dem di dikk di def li nga xam ne Euh, moom mooy yóbbu marchandise ñun Sénégal benn autorail dawagul di yóbbu marchandise loolu day wone ne ñun am nañ liggéey war nañ taxaw war nañ góor góorgóorlu autorail tubaab banque fi bàyyi woon mot na siècle 1885 booba ba léegi defe naa mën nañ ne at yi lañ doog a gis benn raay bu bees muy diggante euh, Diamniadio ak fi nga xam ne moom mooy dakaar muy TER bi muy lu ñu rafetlu bëgg nag wax dëgg yàlla ñu gën a jox doole euh, autorail jox ko doole nag mooy yokku teer bi waaye mooy itam defar raay yi nga xam ne moo fi nekk ndax gis nañ ne màggal gee gàmm gi yóbbu nañ juróom benn junne ak euh, juróomi téeméeru nit boo xoolee loolu bu doon ay kaar la ay bis mooy téeméeri bis xëy na fii sax amul benn société bu fi am téeméeri bis loolu ci diggante fukki fan ak juróom kon loolu day wone ne autorail wax dëgg yàlla am na solo te war nañ ko war nañoo gën a jàppale secteur yi autorail euh, boo demee ci àddina bi nga wër di nga gis ne lii euh, technologie xarale yi di yokk di gën a jëm kanam yëpp yàqul li nga xam ne moom mooy utum liggéey ci wàllu autorail ndax autorail moom dinañ ko dawal xëy na am na ay métro yoo xam ne dañ koy dawal à dix mais autorail li gën a bari ay nit ñooy nekk ci biir di ko dawal autorail dina am ñuy saytu euh, kaaraange nit ñi ñuy saytu koom-koom bi ndax jënd nga ticket wala dindoo ticket ñiy nekk ci gaar yi di toppatoo nit ñi ñuy yéeg ñuy wàcc ci jàmm kon autorail moom mënuñoo fexe ba du indi ay koom-koom suñu réew yi nag li ci yokk mooy autorail gaar bu mu jaar jëndkat yeeg jaaykat yi ñu nga fa di yëngatu loolu moo tax d'ailleurs ñun ñëpp ñu xam ne bu man bi may dem di ziar yi kilifa diine loolu lañu lay njëkk a wax dëkk yu bari seen koom dafa wàññeeku ndax ci autorail bi lañ konte woon pour que seen i njaboot yi mën di ñëw di jënd ji daay di jël ay nit di leen yóbbu ci seen moyen de transport. kon loolu day wane ne euh, xalaat bi ñu teg fii pour xelaat ci lu am solo la waaye nag xalaat bi moom dafa war a ànd ak jëf ndax ñun Afrique problème boobu la am dégg nañ fii conférence bi système bu ne. wax nañ ko fi waaye ba léegi nag a ah, lii li ñuy dawal ci autorail ci ci kilomètre boo ko boolee ñaar téeméer la mooy 200 kilomètres ci 1086 kilomètres boo demee Maroc ñoom ñu ngi ci ñaari junne kilomètres te yëpp a baax autorail yaa ngi ciy daw ñoom tey seen autorail marchandise am na ñaar fukki autorail ak ñeent yoo xam ne bés bu set ñu ngi dem di ñëw ñu ngi ci juróom ñeenti millions yi euh, junne euh, tonne juróom-ñeenti millions yi euh, junne tonne waaw ci ci marchandise yoo xam ne ñu ngi koy def te ñun diggante fii Mali ñu ngi wax ci ñaari millions te loolu sax tàmbaleeguñ ko kon suñu réew yi wax dëgg yàlla war nañ góorgóorlu war nañ taxaw ci mbiru autorail. Je suis Saliou Momar Dieng euh, actuel président de l'amicale des anciens enfants de troupe euh, de la promotion 1976 du Prytanée militaire de Saint-Louis. Centenaire, c'est 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Et la commission scientifique et culturelle euh, mise en place dans le cadre de l'organisation et de la préparation du centenaire a estimé que nous devions quand même euh, sortir des sentiers battus et débattre de sujets euh, qui impactent, euh, la société. Et c'est dans ce cadre-là que la commission scientifique et culturelle a proposé ce thème concernant les transports de masse au Sénégal et en Afrique. en Afrique parce que aussi, il ne faut pas l'oublier, le Britannique est un creuset d'intégration africaine, puisqu'en dehors du Sénégal, 15 autres pays africains y envoient leurs ressortissants qui sont formés dans cette école. C'est pourquoi aussi le thème du centenaire, c'est un thème ouvert euh, à toute l'Afrique et donc à tous les pays en tout cas qui envoient des ressortissants au Sénégal. La preuve, dans les échanges tout à l'heure, vous panélistes développer euh, la problématique du rail au Sénégal, mais aussi dans d'autres sphères géographiques qui ne nous sont pas proches, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, euh, en Afrique centrale. Donc, pour vous dire que le train, euh, le rail, c'est quelque chose qui impacte la vie des populations, que ce soit par le fret, que ce soit par le transport voyageur, les transports de masse En tout cas, c'est quelque chose à réhabiliter et à mettre en valeur, puisque c'est ça qui va faire que nous allons réduire notre empreinte carbone, dans la mesure où, comme vous le savez, euh, des camions, des véhicules dans les embouteillages, etc., ça crée beaucoup plus de pollution qu'un train de marchandises ou un train de voyageurs. Euh, euh justement, dans le même cercle de l'excellence, qu'est devenu le produit PMS Le produit PME se porte très bien. <laughs> Pour preuve, ça fait deux ans déjà que nous avons nos jeunes pensionnaires qui euh, ont eu des résultats très satisfaisants, d'excellents résultats à tous les examens et concours auxquels ils se présentent. Et au bac, l'année dernière, comme l'année précédente, comme cette année, nous avons eu 100% euh, de réussite. Je veux dire des sortants, bien sûr. Mais bien sûr, les sortants du Britannique sont partout. aussi bien dans les forces de défense et de sécurité, aussi bien dans la vie civile, aussi bien euh, dans toutes les sphères de la vie nationale et même euh, internationale, vous trouvez des sortants du Britannique. Le Britannique, c'est une, une, excellente école qui forme des produits de qualité. Alors, il y a un chronogramme qui est en train d'être fait puisque les panélistes, en dehors de leurs activités internes, euh, propres à l'amicale, aussi des activités professionnelles et on essaie de coordonner le tout. Et peut-être les prochaines conférences auront lieu au mois d'octobre, au mois de novembre, puisque l'année du centenaire se termine au mois de décembre.